yooyu noonu su ma mënee nekk itam baax na waaw su ma mënee nekk itam walaaw léegi nag wàllu basaan itam dañuy nekk ba nawet léegi xale yi maanaam fi ñu tëdd waaye daal dana xaw a jafe tuuti léegi dam wàllu basan bu amoon wala wàllu dund boobu itam dana baax lool wàllu dund bi maanaam ak basaan euh, la ceeb yi itam daal basaan mu ne dund dund wàllu dund incha allah waaw. waaw ah, <laughs> loolu daal dañ si kontaan loolu daal. waaye daal sa wax bi daal nañ si lool. ñu ngi leen ñaanal yàlla mu yàggal la fi daal. may la kartan ngi Basirou ah dañuy jang guddi waaw. waaw am nañu ay lamp waaye lamp solaire la daara yi fi nekk lu mat lu mat juróomi daara mi ngi fi. daara yi alquran ñun am nañu ay solaire waaye am na ñu amut am amut solaire waaye solaire yu mag yooyu ñi fa xam ne doon fi joxe daay mbayeen daal soxla nañ ko buñ ko amee daal dana baax lool solaire yu mag yooyu soxla nañ ko trop soxna suñ xel dal na li ñu séentoon lépp gis nañ ko li li fi waxtaanee fa tabaarakallaahu mooy soxla su dëkk bi ku leen jàppale ci wàllu diine xam na fi jigéen ñoo xam ne maasa kombe ci am nga xamuñu daara te rus nañu laaji soo fi organisé lu mel noonu am na fi jigéen ñu bari ñu sant si seen ñoo xam ne seen xam-xam solo ku leen defal lu mel noonu dana dana baax lool waaw tey am na fi ay itam ñoo xam ne yaakaar naa dañ mën a méngoo loolu a jàngale loolu am na fi ñu ngi sant di gërëm waaw waaw waaw waaw incha allahu taala dañ ci dinañ ko toppatoo bu neexee yàlla ni nga ko waxee dégg nañ ko dañ ko toppatoo bu baax waaw xaw nga yoon wa yoon wa sa kilifa yaa woon yoon woowu nga aw yàlla na yàlla dëgëral la yàlla kattanal la yàlla bu suñ yaakaar tas ci yow berken bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bu la benn fakk fël ndimbalal réew mi nga xéwal nga fi tax a ñëw sa baay say maam paral nañ la lépp xeewal nit ñi moo la tax a jóg dimbale leen moo la tax a jóg yal na yàlla dimbale la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam bég nañ lool kontaan nañ lool góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a kontaan kenn ku nekk nga yëngal boppam wax moom bu duggee ci xol rek ñëpp danañ ko yëngal danga ko dégg gis ni ñu junjee bég nañ kontaan nañ yal na yàlla bég ci yow barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yàggal la ci sa kanam njaboot gi bi hormati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla bul xóote dara ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam salli ala muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah waaw li ñu tere mooy kaddu yi mu wax léegi moy kon wane contant rek akit nak comme lim ko waxee léegi jangal jangam jigen ni nek na lo xam ne it na ci ñort na inshallah taala dana ci man a dana ci man am dam ndax jigéen ñi sawat na jang trop trop trop trop sax ndax bay na ñu koy ñu koy tawat sax bako man te it bu yàggu rek sëriñ Abdou Moussa ñono fi di fàttali loolu na ngeen jangal jigen ni seen diine ak seen ni kon bu ñëwati encore di jaar ci yoon woowu encore dañuy en rafet ne yalla am na yàlla na si dimbali inshallah kon ñuy yëngu rek euh sant yàlla gërëm lu baax baax kon. bismillahir rahmanir rahim ma ngi sant yalla bu baax di julli ci yoonent bi di contante ñew bi ñu fi ñew tay ndax ñew bi tay yalla ma ci boole te yalla mom lu baax rek lay def ndax man dama dem di jaale ji sax jaar na ci alaaji Mba na ko ngi dem defé dafee ji te ñew léegi ba ma demee jaale ji fekk fa programme bi yàlla def sëñ bi woo ma ne ma xadi ma naa mu ne ma bul ñibbi kat boole naa la ci bi ma ne ko programme bi lislaam de kuñ ca boole nga sant yàlla kon nag naa ko xaar ci laa wooyee na jaa keebaa xoo ko téléphone ndax du ma def dara lu sama borom kër yéegul xoo ko wax ko ko mu ma waa bisimilah loolu kay baax na ma xoo fexe ba jot alaa jimba si la wax ko ko mu ma waa loolu de baax na ma doog a ma toog te xaw nit day am kilifa comme ni ko sëñ bi waxee léegi nag looloo ma fa baxoon te xéewal la fi indi ak lislaam te moom la nit ñi soxla xéewal ak lislaam moo fi nekk. sëñ bi moom tarixa la boole ndax jullit day boole yëpp moo ñu indi yàlla boole ma ci nag ma rafetlu ko kontaan ci bëgg ci moo taxoon ma ne leen Kër Mandongo nañ fa dem. buñ fa demee ñoom it ndaxte dëkk maam Khalifa Niass la dëkk maam Abdoulaye Niass la ñoom it ñu saafoxanteeg ñoom ma wax ko alaaji ma wax ko ne jàkkee baax ko nañ dajale bi xam naa sax bu fekkoon ne message jàlloon na bu baax sax dana tëb ma ne kii sa ma doon ko gisuma fi kenn nañ wax nag alhamdulilahi rabbil alamin ndax sirif bi ku ko xëy gis jàkkaarloo moom saxaa bi faju na bisu xal xemes nañ sant yàlla ba mu bëri man de wóor na yàlla bu ci wuma woon Dakar dara lu dem rek saa foo xanteeg ñoom sëriñ bi nelaw ñu ngi sant yàlla nag bu bëree bëri maa ngi kontaan ci yoon wii di kontaan ci tànk yi ma yëkkati ba ma ànd ñii ñu tedd ñii maa ngi gërëm yàlla di ko sant yàlla di ñaanal alaaji Mbasile yàlla na la yàlla yàggal yàggal bi ñëpp ndax gis nañ sa taxawaay bi diine ji borom dëkk bi yëwi noonu di saabali noonu yàlla ñu yàlla fii ci njub defal ñu jàmm yar si ñoom njaboot làq ñu fa yàq yëpp seulement ñi xamuñ sa fay ndax jàkkaarloo yow rek xéewal li ma wax rek diggeewu ma dara fi ne li ma nga xam ne laa ne bu paree rek ñu joxe mu ustaas li ci des nag ku ne daf may wax rek soxlaa ni ma ko disee rek maa ngi koy dis yàlla mu ñëwee rek mu te ci ah, du ma ne tey du ma ne suba ñee comme damaa wax maa fekk jigéen ñu góorgóorlu ba tabax ba nga xam ne bu ñu amul bu ñu leen ko xaddaloon ak seen nawet bu ñëwee ñu ne juróom benn weer duñ jàng kon loolu kon bu doon loolu rek laa amee war naa leen ko defal fii alhamdulilah xadd nañ tabax na am nañ fi toogee dëgg la am nañ basan même bu fekkee màgg na waaye du tere nañ bind ñaata basan moo ko war a mën a daara ji ngi tam basan yéene moom lañ soxla ñu bind xool lu ñu ci yàlla mën loolu ñu def ko waaye man toujours damay seet ñi nga xam ne ñoo gën a ki nga xam ne daal moom boo ko dimbaloo du jàng ki nga xam ne am na fu jàngee xëy na rek basan bu nooy moo fa wala kii kooku mun na xaar ba ki nga xam ne moom boo ko defalul lu xat bés kii ba juróom dina toog jàng man noonu laay doxee toujours damay bi nga xam ne moo gën a moom lañ gën a soxla ma bu ñu ma ko waxee rek kii boo waxee di ngeen war a jëlal numéro Seydina Ndiaye comme fi mu ne dañoo yàkkam

jëriñ leen ndax tey nañ sant yàlla alxames la tàkkusaanu alxames ngeen am ko ci njaboot ak Cheikh di Diagne njaboot ak maam Xariba ku leen gis bés bi ak waxtu bi taw ak xaram na ko tax loolu orang tee yi yaxal la sant yàlla bu ma fekk la su ko defee nag maam dafa ñëw ngir dimbale leen ci lan naa ko rek ci seen ñi ñoo man seen wala ku mokkee doy na waar ak ansaar ak yeneen ak mag ñi nga xam ne aussi bëgg nañ cee xamee seen diine donte ci jàkk ji ngeen di toog wala ci ron garab leen jëm boo xam ne ku fekkee ustaas bi am na fi laaju leen ci dara dana wax ak ustaas bi mu di ko jàppale ci wërsëgam di ko ci fay yéen moo leen di jàngal ba ngeen xam ràññee su ko defee loolu mooy yoon ñëwul laaj ci àddiya ñëw tamit benn taal bu dëgg lu mu sori sori boo ko gën a junne yu dëgg yàlla def na it say rassemblement ñëw nga ci dëkk boo xam ne nii it dëkkab séeréer la ak wolof fii ñu toog tey nag mooy séeréer yi fii ñu toog nag ñii nag ñuy yàggoon lañ ci ki nga xam ne mooy sa mag di Ahmed Khalifa ba tey lu ñëw ñëw doole ak kàttan mboolem voyage yi ñuy def biir Saalum biir Ndukumaan ba Fuuta ñëw ñëw ñëw ñëw yaa ngi dégg ak donte jafe-jafe yu ñett taw nañ fee néew doole lool waaye moom a dëpp nañ gis nga mat gis jàngee sax daanaka moom it naka noonu jigéen ñi sax wax nopp fi bu fekkee ne góor ñi fu ñuy jullee daanaka ñoo fa xel yu waxantuma jigéen ñi soxla nañ dimbal tey ñu dëggu lañ ñoo xam ne ku leen jàppale incha allah dana dem tey lii ñu koy door a xam soxna si jigéen soo xam ne su maam xalifa la ñëw fii fas yéene waxtaan leen seen wàllu diini la leen si yàlla ñaax leen ñu koy door a xam kon nag nañ ci sant yàlla ba buñ jëllu si waatee beneen yoon fekk mu gën a yokk ci zahir ak ci baatin li am solo lu mu tuuti tuuti xal bu dëgg rek moo am solo mbooloo dajee fi te kenn dëgguwutin amul solo kon daal ci gàttal kii mooy soxna si ñu jël kàddu jox ko mu waxtaan ak yéen su ko defee ñu jéem a jàll ku ci incha allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإخوة والإخوات أحيي كل واحد منكم به ولقبه بأحسن التحية تحية طيبة مباركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. mbokk yi maa ngi dund si nuyu boobu jàll léegi nekk si turam ak santam ah di gërëm yàlla sant ko baax a baax si fekkee bi ñu fekkee ginnaaw bi fan yi dafa am ndey ñu fi ne dañoo bëgg ñu jàngal soxla yi seen wàllu diine ne fekkee am nañ ustaas ah bu ko defee ñu ustaas ñu ma ko waxal ma ne ko ah allah man ni ustaas la waaye ah, dama am ay waajur te ñu ngi dugg si dara léegi bu ñu ñëwee suñu waxtaan ni ñuy tëralee programme ni ñu war a jàngale ak euh, dirasa bi naka lay demee ak yan mawaat ak lan lay doon incha allah bu ko defee ñu dem tàgg suñu waajur ba ñu jox ñu digal bu ko defee ñu ñëw fekkee ne euh, jàppale na ak suñu liggéey mën na ànd ba mu dem bu fekkee tamit euh, mën ta ànd tamit ñu daal waxaguñ ne dama mën a ànd ak liggéey bi waxaguñ tamit si dem ndax dañoo nekk ñi nga xamante ni dañuy am dañuy dañuy yëngu te amaguñu digal suñu kilifa léegi li li ñu waxtaanee buñ ci noppee incha allah bu ñu demee dina leen ko nettali comme ni nga xam ne ni leen ko waxee buñ ci nangoo incha allah bu ko defee luñ ci bëgg dinañ ko doxal te tamit ñu xam tamit dirasa bi naka ak ban waxtu lay doon ak yan saa lay doon bu ko defee yooyu yëpp day day jëloon soirée pour ndax dina mën a ànd ak programme wala du mën a loolu moo taxoon. إيه؟ إيه؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ينبغي الله ما نلدنيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما نلدنيو كل كترم أكي سنتم ما نلدنيو أكي جيل ما نلدنيو أكي دو bëgg naa torop ci taxawaay bi ngeen taxaw bàyyi seen liggéey bàyyi seen yëpp ñëw ñu ne daratu xalifa ni ñëw ñëw toog di déglu ñu wax kon ni ma ko waxoon ci commencement bi rek mooy li ma yëkkati mooy tànk ëllëgee boobu nga xam ne sama baay xalifa sama maam alaaji lu ko jiitu daan nañ ko def di ñëw ci taalibe di leen fekk seet seet soxla di seet nu ñu leen dimbalee pour ñu gën a mën a topp yàlla na mu waree topp yàlla nag mënoo koo def te xamoon ni ñu koy toppee loolu tax yàlla santaane nañ jàng saar yu njëkk a wàcc ci alquran mooy iqra jàng leen yàlla itam feneen mu ngi wax ak malaayka yi bu naan ne dina def nit mu wutu ko ci kaw suuf waaye ba mu ko waxee bañ ca tegee na nit ki dana yàq dana tur dana indi seenum tontu yàlla da leen rek xam naa lu ngeen xamul te yàlla moom lépp moo am lépp moom lépp moom na leen jaay leen te jaaw leen ko xam-xam rek la leen jaay foofu kon yàlla ngi war na di ñu ci jàngal lu am solo yàlla itam feneen mi ngi naan laa yastawi alladina yaalamuuna wa alladina laa yaalamuun ki xam ak ki xamut duñu yem mukk kon yàlla nag li muy bindee mooy ñu jaamu ko loolu rek tax mu bind nit bind jinne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun léegi nag nit daf koo sant mu jaamu ko moo tax mu bind ko waaye daf koo may mu tànn tànn yoonu njib bi mu ko tegal ne na jaamu ne ko bu ko jaamoo mu fayee ko àjjana daal di koy ne ah bu jaamoo bu déggut itam topp seytaane safaraan fii nañ ci yàlla musal boolem jullit mu jox ko maanaam mu tànn malaayka bi moom mu def ko ci leer nga xam ne day jaam rek laa yasuna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun lépp leen yàlla digal ñu def ko te duñ def nubbu mooy ndigalam mu jël nag asamaan suuf garab yi rab yi bëy yi xar yi picc yi ba melantaan yi saaru bu tudd saaru melantaan suratul numl mu ngi ci alquran mbindeefam yi ba ca gën a tuuti ba ca day négligé wu ca benn bépp yëpp la yërëm yëpp la bëgg ñu dugg ci yërmandeem mais ñooñu tegu leen maanaam li ñuy wax taklif tegu leen ne bu ngeen jaamoo bu ngeen jaamoo waaye nag am na fenn di ngeen di gis tey garab yi bu ngeen xoolal di ngeen gis garab boo xam ne la ci ëpp dafa wert waaye dañ ci gis xob yi woowu maanaam garab yeeg rab yeeg melentaan yeeg yooyu nga xam ne duñu nit ñoom dañ leen a teg ne buñ jaamoon seen waxtu jaamu yàlla sabaxal yàlla buñ ko deful rek dañuy denc saa si dañuy wow nit nag yàlla teral ko ndax mu ne wala kat karam naa bani aadama teral nañ doomu aadama mu may ko nag ne ngëm ngi nii ñàkk ngëm a ngi nii boo ma fay la te ndax ngëm googu tax mu bind ko boo gëmul safaraa ngi waaye daf koy may tuuti daal di xool ndax bu ko ndax bu ko seytaane soree dana gëm mu koy may tuuti daal chance am pour bés bu gëmmee rek mu baal ko la paase daal di koy nangul ak tuubam ak jaamoom comme nag garab yeeg xob yeeg rab yi ku ci jaamul bu sa heure jaamu jotee bu paase rek ci saa si la lay jël ñun nag mu bàyyi moo tax nag yërmande boobu nga xam ne nag dafa ne wa rahmati wasi'at kulla shay'in yërmandeem subhaanahu wa taala dafa ëmb lépp moo tax mu yërëm ki ko gëm ak ki ko gëmul tey boo demee œuvre bi sax léeg nga ne moo ëppale jullit mais am na ci yoo ëppale jullit nga ne tax kii gëmut yàlla تأمن لو دول جيخ لو تك جوليت بيغان موغي گم يالا تا ليلي دو ام لوم ليك وا مو الله عليه وسلم فرول نكو ني نين الجن الدنيا تو سجن سجن المؤمن وجنة الكافر ادنا كسوي جوليت لا دي اجنا ييفر كوم ييفر موم ادنا رك لا ام لوم ام لوم بري بري يوم القيامة بن كو جيلي با سفكو سي سفرا لو سي حديث لا بن كو سيبي نكو نداخ مس nga gis mu ne mukk amoon benn sëpp safara boobu tax na mu fàtte ko ko jullit bi ñu ne buñ ko indee àjjana ba dugal ko àjjana lum ñàkkoon ak lum sonnoon bi gunee mas ngaa gis benn tolof tolof wala benn xat-xat ci àdduna mu ne mukk ci àdduna kon nag ut yàlla ut bés penc bi nga xam ne nii foofa la rawante ba war a nekk moom mooy li ñu tax a jóg pour nag ñi nga xam ne xamuñ ko ñu xam ni ñu koy doxalee julli nag mënoo koo xam te jàngoo jàngoo lu gën a tuuti fatiha te fatiha tuuti na saar ba gàtt na waaye rëy na fatiha rek doy na alquran fatiha dafay faj jàngoro yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo def ci ndox naan saafara bi bismillah jàng mukk alquran te commencé wuñ ko du julli te commencé wuñ ko ku ko mënta tari boo ko commencé wut sa julli amoo julli loolu moo tax mu ne bu leen indilee ustaas soxna yu jotuloon a jàng ba ñuy xale ñi xam faatiha buñ ca boolee xul wallaahu ci jàngee ñett am nañ yooli kaamil ki jël kaamil ubbi ko ba jàng ak ki jàng ñetti xul wallaahu ñoo yem ci yàlla kii jàng na ba mu kii mënta jàng mokkal na xul wallaahu te loolu itam ci xadis la loolu bi yonent bi wax que ne niñ fexe jullit bu ne balaa tari ñetti xul wallaahu tari ko loolu mënuñ ko def sang bu tedd bi dafa bëri moom xul wallaahu bu nekk remplacé na maanaam buñ ko xaajee buñ xaajee alxuraan bu ñett ñetti xul wallaahu daal mooy yoonu kaamil ku fi sa waajur nekk tut boo ko ko ñaanalee mu fekk ko mu mel yaa ngi nekkoon fii rek di ko jox alal bi dul geex ndax bu fi nit nekkatul loolu rek moo koy fekki yéen salaa salaam ne ne bu nit dee liggéeyam yépp dog lépp taxaw ba des nag ñett mu ne doom ju baax ju bàyyi ginnaawam mu ne yàlla yërëmal sama waajur doom ju baax jooju jàng alquran di ko ñaanal loolu day continuer leer ca bàmmeelam ba yawmul xiyaam wala jëf ju baax ju wax baxoon sadaqa jaariya dinañ mooy jumaa jum tabax wala jàkk nit ñi di fa julli féeg ñu ngi fay julli yor baa ci moom wala teen bu ngas nit ñi ci naan jur gi ci naan wala garab gu mbaay war muy sax jur gi di jëriñ lu ñu ñuy jëriñoo daal lu mel noonu bu boobaa loolu rek moo koy fekk la ci des yépp bàyyi na ko fi kon nag loolu moo tax ñu ne woon bu fekkee tana nañ leen ci ñu ñëw gën leen koo xamal su fekkee soxna yi am na ku leen jàngal tey buñ mokkalee faatiha mokkal xulwallaahu mokkal falaxeeg naasi falaxeeg naasi daf leen di aar ci seytaani nit ak seytaani rab daf leen di aar ci liggéey képp ku koy xëy jàng subaa ngoon lu nit liggéey ba ëllëg du la jëriñ du ko du la wàññi tus soobee yàlla parce que yàlla moo ko or mooy mu ne yaa ngi muslu ci kii ëf di fas kon nag loolu ngeen ko mokkee di mokkalee di ci aar seen jaboot di ci aar seen bopp xéewal la ak yokkute bu boobaa nag képp ku gis ne moom njàng mi neex na neex na ci xolam alxuraan waxu yàlla bi bu koy jaan gis na ne xolam gën na oyof gis na ne bu amoon naqar bu ko jàngee xolam na na féex mu bëgg continuer ci loolu mu continuer képp ku gis na itam njaboot ak kër lañu am itam am nañ dénkaane bu leen yàlla dénk mu njaboot gi bëri na mënuñ cee jàng mu bëri loolu rek bu ñu ko jàngee fatiha qul wallahu ahad ak falaq ak naas yi qul yaa mun nañu ne alquran am bi yëpp am nañ yoon bi am nañ li leen ci aar njàng mi nag ni ma bëggoon mu demee mooy nii man ni ma ko programme incha xam naa ne borom kër borom kër laa xam naa ne borom kër toog su ba ngoon di jàng mënul mag mu jàng itam yoon waaye nag bu ko bu ci dogoo rek yàllaa ko ci dimbali ndax alxuraan waxu yàlla la ku koy jàng yàllaa la ci dimbali soo ko jëlee xol ak yéen yëpp nga mun a sellal sa julli ak sellal sa dama ne ngeen di seet yéen yéen a xam jot gi ngeen di am liggéey bi ngeen am moo xam ci tool yi wala ci dëkk bi su ngeen seetee ne ba si àjjuma am ngeen jot ku ci togg añ ba pare ba julli tusubaar nañ ne ki dem ba 3 heures naaj bi wàcc mun na ñëw fii oustaz bi jàngal ko moo xam ci julleekaay bi la moo xam ci ron garab gi diggante 3 heures ba 5 heures ñaari waxtu fa bi ak bu gisee ne loolu bëri na nañ ne 4 euh, heures 5 heures mooy kaar lañu ñu julli takkusaan nañu nodd defe naa ko fii ci Sénégal julli 5 heures. 4 heures ba 5 muy waxtu ñu jàng ñu balaa kii muy waxtu buñ ne néew na ku jëm ci yàlla dara néew ci loo xam ne alxuraan benn xaraf yoon la. yool boobu fukki yool la ko yàlla fulandi mun na koo fulandi ba juróom-ñaar téeméer mun na koo yokk ba ci lu ko neex su boobaa waxtu woowu buñ ko jàngee diggante quatre vingt mu waxtu ñu jox waxtu woowu ci seen waxtu ci seen liggéey ci seen yëpp yàlla duñ ko ci yokkute rek lay ne kooku buñ koy def bu yàggee danañ mokkal luñ ne yéex a yéex a mokk luñ dégg dégg di làkk muy arab waaye yàlla moo def ne ku jàng alxuraan daf la koy yombal loo tax nga gis xale yu di tari kaamil ba mu jeex taxamul benn baati arab yàlla moo ne wala xar yassarnal qur'aana zikri fa hal min mudakkir képp ku jóg di tudd tur yàlla muy alxuraan rek yàlla dana ko yombalal su boobaa fekkee loolu gis nañ ne mënuñ ko ñu ne bu buñ jullee tàkkusaan ba pare xëy na buy nawet fekk jóge nañ ci tool yi xëy na togg nañ nañ ne diggante 5 heures ba 6 heures nga xam ne itam timis gi jegeegul ndax ku ne xam ne ne jaboot bu timis jotee jegee bëgg nga nekk sa kër uuf sa njaboot yaa ngay toppatoo sa kër fekkee yow liggéeyoo sa borom kër mooy liggéey wala yéen ñaaree liggéey soxla ngeen balaa jant bee soo yaa ngay defar nañ ne 5 heures ba 6 heures bu nañ ne 6 heures ba 7 heures comme 7 heures ci jamono ji mu ci ay timis mu ci 7 heures demi waxtu balaa timis genn wàll waxtu balaa timis a jot bu ngeen defee 6 heures ba 7 heures am ngeen genn wàll waxtu balaa timis bi jot ku ne dellu këram ca njabootam su fekkee yoor-yoor bi ngeen gis ne ci ngeen di am jot benn bés ci semaine bi yoor-yoor daal diggante bu ngeen joxee ndékki ba pare te taalal leen añ ci ngeen am jot ngeen ñëw yéen yéen a xam maanaam seen emploi du temps seen ni ngeen di liggéey waaye bu ngeen ko ci xaj-xar jëlee muy benn waxtu bu mu ne nekk ñaar xayru nañ ne benn waxtu rek par bés pas par bés semaine sax laa leen laaj man semaine bu ne rek benn bés yéen a koy tànn waxtu woowu bu soobee yàlla yéen koy tànn ba nga xam ne yëgoo ngeen ci yéen ñëpp waxtu woowu ngeen ne waxtu bi daal jox nañ ko yàlla. ni ñu joxee li ci des yëpp àddina suñ dudd àddina waxtu bi jox nañ ko yàlla pour gën cee xam yàlla yéen ñooy ustaas bi jàngal leen ngeen xam li ngeen di jullee ba pare. buñ jógee ci loolu nag bu leen mënee jàngal yeneen mooy ay nu ngeen di seen ngeen di jàppee yooyu bu fekkee xam ngeen ko bu fekkee itam xëy na sa moo ëpp fii ñee ñi rus nañoo laaj góor ak ah, ñaan naa yàlla bu ma mayee bakkan du ma ne bër bu set mënu maa ñëw waaye bëgg naa daal ma yàlla may tournée yi ma di ko def at bu ne daal bëgg naa am mooy dëkk yi ma jaar yëpp dëkk bu ne ma jaaraat ci mais wala yéen ni ma def ñu ñoo jaar ñetti dëkk ñeenti kol bés ma def fa waxtu wala ñaar nga xam ne maa damee na bés bi tey pour yéen rek la bu ma ñëwee yéen doog jigéen ñi mën a waxtaan góor ñi sori yi nga xam ne yëpp bëgg nañ koo xam ki seen diine te mënuñ ko wala rus nañ ko ñu laaj ma ko la ma xam ma wax leen ko incha allahu taala bu fekkee am na ci ku ñu mën a jàng itam français seen doom yi am na ci ko jàng su boobaa bu fekkee wax ngeen ma naa indi téere yoo xam ne français lañ ko bindee mais li diine ji di santaane pour nit ñi muy laabee loolu yëpp mu ki ci xale bi ki am doom mu jàng français boobaa itam mun nañoo seet jigéen ñi buñ dajee benn bés benn waxtu kooku jàngal leen ko ndax benn bés xëy na mënoo cee jàngale yëpp wala même boo ko jàngalee duñ la yëpp. xëy nit ki fàtte bu ñëwee bu ñëwee ci kooku bu ko ubbee téere bi ne ah lii la wax nii ngeen di sangoo nii ngeen di jàppee nii ngeen nam ba ba mu jeex daal mooy li sama yéene waaye nag comme niñ ko waxee comme l'islam li ñu sant mooy ñuy digal ci ndigal la ñuy wéy rek képp koo xam ne borom këram ànd na ci loolu gis na yokkute la bu diine ji yokkoo sell sellte la te yokkute la barke wàcc njaboot ga ñu yor ngeen ci diine doom ji comme bu juddoo yaa koy nàmpal yaa koy jàngal lekk naan boo ko jàngalee gën yàlla bëgg yàlla ci bi muy xale saar yee nga xam lu mu mokkal ko tudd ko daal day tax mu gën a bëgg rek ndax lépp mu jàngal doom doom daf koy bëgg yaay toujours ak doom ñoo gën a jege ndax xam naa ndax ëmb ba ak jur ba balaa caa bàyyi jaay jot buy góor ba mu koy jàngal ba muy ànd ak moom fekk na mu njëkk jaar ci daara bi nga xam ne mooy yaay loolu moo tax ma ne kon mu ñu waxtaan cee yéen. buñ leen joxee diggal borom kër yi ngeen bindu xale yu jigéen ñi nga xam ne ngi toll ci jànq ba ci xale yu tuuti jot a dal ku ci nekk itam bu tàggoo baayam ba mu jox ko ci ndigal su boobaa ustaas bu jàngalee mag ñi benn waxtu par semaine xale yu ndaw yooyu fekkee jàngagul daaray xale bu jigéen amu fi mun nañ leen a jàngal fekkee xale bu jigéen am na fi bu leen mun a jàngal bu jàngal alquran fa biha moom ñu gënal bu amut su boobaa dañuy tànn lu ñuy wax ndey daara dañuy seet ki jigéen ñi dëkk bi koo xam ne xëy na njël wàcc na ko toggatul yàkkatul ndax ay gorom moo koy toggal ak yooyu muy mag bu xëyee xëy na day tiré kurusam di tudd yàlla wala ma ngay xolli gerte wala ma ngay def en tout nekkatul daal ci njël ak yar su boobaa daara ji bu ko defee moom bu xëyee toog moom mooy nekk ak ustaas bi ustaas bi jàngalee mu nekk ci wetam loolu yépp itam pour dàq seytaan yi dàq fitna dàq li nga xam ne léeg-léeg ñu dégg ko ci daara yi te fekk nit nit la seytaani dugg ko duggee ko nag foo xam ne war waru ko faa duggee fu ñuy waxee tur yàlla foo xam ne yàlla fa aaya def lu bon mu def ko fa waaye nag mu ngi tam ci école tubaab yi te fa la gën bëree waaye ñoom bu jógee dañuy nëpp nëppal seen bës jël bu diine ji weer ko bugg koo diigatee lislaam te fekk du loolu fekk ko seytaane dugg la yàlla nañu yàlla dàqal seytaane. lii jar na di dox di dox di dox ba dee. ndax uruti ko kon buñ toogee ba ñëw ci suñuy tànk te dama ne ñun duñ def dama yaakaar ne nag njàng mii xëy na yow ñu ko cofalee sax ñun ñun euh, ëppal nañ ko ñun euh, doole lañ ko jëlee de bu soobee yàlla ndax euh, Seydina dafa xam nga wax ko bi yëpp tey daanaka ci laa ko te olof ga moom dañoo am tey benn xew moo tax fekkuleen leen ci yàlla yoo ci français laa ko bindee damay bind français di ko jàng ci laa ko xamee waaye mënumaay jàng ci francais xam ko buñ ko bindoon tey jii taaj ko fii duma la ne lii ak lii la kon su ma toogee ba gis koo xam ne kii dina ma ko mën a faramfàcceel ba bu ëllëgee ma su ma ko jàngee français jàngaat ko ci alxuraan dama ne sant yàlla rek moo fa nekk lii nga ñu wax nag bu soobee yàlla yonent bi ñu de jël nañ suñu engagement ba pare fi mu ne nii jël nañ ñun suñu engagement ba pare noo ko bëggee rek ak noo ñu ko bëggalee rek ñun ñu ngi ci ñun benn bés bi nga wax ci semaine bi sax est-ce que ñun loolu doy nañu loolu fan boobu ngeen ñu wax ndax benn fan boobu doy nañu waaw parce que ñun jël nañ suñu engagement bu mag a mag boo xam ne fi mu ne ñun dara dowul suñu ittee dara duñ suñ soxla lu muy toog jàng rek bëgg nañuy jàng bëgg nañuy jàngal suñu xale yi ndax suñu xale yi am na ci ñoo xam ne itam doole won pour nga duga sa dom ci arab bi mu de ko jàngal doole mayewu ko kon buñ gisee xiiwal bu melni dañuy profito ñu duga ci suñ dom yi ñu jang motax ma wax la ne ñun engagement bu rëy lañ jël ñun jël nañ suñ engagement ñun fi mu ne nii yow rek lañuy deglu soxna ci heure bo ñu ne tay la rek ñu ne tay la wa liste ba ngi ni wa jox na mako ko. Yeah. أنا أنا أنا أنا أنا رب العالمين وصلى الله على من من نوري كل بدر يبدو وشمس الزوالي لولاه ما كان كون إذ كان عين الكمال فهو المقدم حقا في الخلق دون جدال الواسطة للأنام شمس المعرفة البازقة في أفق المكونات لاستنارة كل ظلام سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله مبكي جليد يسل دجيهيت في وقت وسل وايه في كنام برب بسل نيوي جل جرومي بعد يسل دلين كنيو تموي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di ñaan nag lépp loo xam ne nuyoo bi làmboo na ko yàlla ñu ko yàlla may nuyoo bi làmboo baatab salaamatu mooy firi jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm làmboo na baatab rahmatu mooy firi yërm yàlla ñu yàlla xool bëtab yërmaane làmboo na barakatu mooy firi barke yal yàlla def barke ci lépp lu ñuy yëngatu ci zaahir ak si yàlla sañ na ko mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal